Euh, zik social euh, nek ci li nga ne moy deuxième euh, jour joxé li nga xamné mom moy ndogom chaque dimanche ngeen gis ni équipe zik FM bi ak équipe zik social bi ginnaw bi ñu demee fële nga xamné mom moy hôpital régional defoon c'est li nga xamné mom moy mooy ndogu deuxième jour Andon ceeg ki nga xamné monsieur le maire maître Ousmane Diagne S Est euh, tey nag mu nekkone ki nga xam mom wa ziku partenaire ak euh, social ndax duñu né boulet euh ginnaw dara alcorane bi nga xam ñing ko doon def ki nga xam mom moy maître Ousmane Diagne bobu avant muy nekk maire euh Zik social demandé mu yëkëti li nga xam mom moy 2 deux tonnes ciment may koko tay Zik social di def li nga xam mom moy ndogu ñu woko mu nekk li nga xam mom moy partenaire am ñu bayiko ma présenter ko mu nuyo monsieur le maire maa ngi lay je fay euh, Assane di la gërëm bu baax di dans leur ensemble di am content gu mag tay ñëw ndogu ak Social euh, di leen féliciter di leen encourager ci activités yi nga en faveur des populations diminuées. <laughs> Euh, ginnaaw euh, li nga xam ne moom mooy dañoo ne yéen askan bi moom moo leen fi taxatoog a toog euh, Social nag lépp lu muy def ci askan bi la koy jëmee nga dégg ko ñu ne ki nga xam ne moom mooy maître Ousmane jaañ ñëw na ànd ak ñun li nga xam ne moom mooy ci ndogu yi ban yëg-yëg nga ci am. waaw loolu duñ amuñu ci lu dul contenté contenté contentement bu mag lañ ci am parce que ñun dañu nekk ay doomu Cees yàlla def ñu juddoo ci. ci ay quartiers yo xamni ay populaires. yoo nous ni buñu nekké ndaw wayjur yi dañu teel a ci luñuy wax solidarité. xam nga da fay bind te wul donc suñu koñ yi quartiers yi dëkk bi en général dafa nekk dëkk yoo xam dëkk bu metti nit ñi dañuy góorgóorlu kenn togul père de famille boo gis bu xëyee mu ngi góorgóorlu di wut lu mu yóbbu ci njabootam mais yàlla nag moom mooy maye. Mhm. yàlla may euh, des fois mu xagnelé ñële mhm. euh, donc bu ñu yàlla defee loolu nag nit ñi ñoy xol nuñu organiser wu en tant que être humain mhm. pour organiser ben solidarité mhm. xëy na ñun suñu doolé may ñuko bañu mëna def bañu mëna taxaw fep suñu ko suñu doole mayoon képp ku ñu gis nga nekk ci rek ci ñàkk ñu fexe taxaw sa wet mais loolu yàlla mayewu ko ñu gis yéen waa Zik ngeen koy ngeen koy def mu nekk loo xamante ni daf ma daf ma frappé dama koy wax euh, Amath ma ni ko man sama oto su may nekkee sama oto toujours Zik FM laa koy bàyyi 92 point 3 moo tax ma leen di suivre di gis li ngeen di def mu nekk loo xamante ni bi ma ko njëkkee gis Euh, organisation bi cette scène de solidarité bi nga xam ne yéen waa Zik Social yeneen koy def. Mhm. Euh, mu nekk loo xam ne dafa tooy sama xol. Mhm. yàlla mi ma tiim xam na ni xëy na ñoo ko matewul mais bu ko moyens matewoon chaque mhm. dimanche. su ngeen koy def damay ñëw taxaw ci seen wet parce que li ngeen di def. ñun ñoo ko war a def. mais yéen comme ñun ñoo ko war a def ba pare yéen ngeen ñëw defal ñu ko donc du ñu nekk lu dul di leen ci gërëm di leen ci sant. su leen Euh, un aspect commercial. Vous mhm. finissez de di def rek un aspect commercial. Vous avez un poste ou un salaire salaire employé. Mhm. mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez ni au delà de la recherche et la distribution de la bonne information. Mhm. yéen da ngeen a am un rôle de sociabilisation et de solidarité envers les populations. Mhm. te loolu yéen a ngi koy doxee loolu la ñuy wax rek la responsabilité sociétale d'entreprise. entreprise. Mhm. te loolu yéen da ngeen ci taxaw bu baax a baax a baax donc def ñu def lu dul di leen ci encouragé. di leen wax ni kontaan nañ ci yéen bu baax a baax a baax te incha allahu rabi dinañu continuer di leen accompagner lépp loo xamante ni Zik FM mu ngi koy def lépp loo xam ni Zik social mu ngi koy def. bu ñu ko yëgee dinañ ci ñëw taxaw seen wet ñu defandoo ko ensemble parce que xam nañ ni lépp lu ngeen def rek askan wi moo tax ngeen koy def. Amnon solo bala may ñew ci sunu mbokk momu xamna naa ni ci kanam euh, ki nga euh, Zik social jigen ñi di Maguette bu Serigne Babacar poser question euh, ki nga xam mom moy président sidat momit dina poser li nga xam mom moy question question rawatina tamit ñi nga Zik social nek tamit ci commune Thiès Est bi tamit dinañu poser question ma ba dalal sunu mbokk mi mu

ku xam maître Ousmane Diagne xam ni c'est un social. ku xam maître Ousmane Diagne xam ni nit ku am bëgg-bëgg te mbëbëtam lépp lenn la askanam nan lay ñoŋee wala ay askanam nan lay mën a gérer seen i préoccupation kon nit ku mel noonu soo ko amee jàpp naa ni moo gën ki nga xam ni day jël dëkk foo xam ni mooy loolu pour nga gis ko sax problème la mm-hmm. mais nekk na ni koo xam ni macha allah. Mm-hmm. ni koo xam ni ñun soo gisee ñu bàyyi sunu lépp di ko gunge saa fu muy dem. Mm-hmm. ak si lépp lu muy dox ñu si ànd ak moom nekkul defu ñu fay wala dara mais moo ñu ko ji jigi nag mooy yaatu ki mu yaatu ak baax bi ak am njariñ ki mu amal njariñ population gëm naa ne loolu moo tax ñun fépp fu waay di ko gis dinañu gis wetam rien ko pour di ko gunge si mission bi yàlla na ko ko yàlla oyofal ba lépp loo xam ne mëbën na ko si lu rafet yàlla gën ko see teg loxo donc dina leen sant leen gërëm. jërëjëf Bamba nga nekk jiite li nga xam ne moom mooy wàllu sociale ci Thiès Ouest bi comme niñ koy faral di sànnee xeer man ak sama jumeau MRG chaque 17h30 euh, dangeen a am budget sociale wëlbatiku nekk ay cas social soppaliku def ko seen bopp kon euh, mën nañu am yaakaar ni Zik sociale tamit euh, ubbi na ngeen ay buntam pour ñu jege leen. mën naa wax ni ku xam euh, maître mhm. da ngay jël image am nga yóbbu ko si commune de Thiès Est mhm. man noonu laa wax parce que su benn maire sociale ubbil boppam ñëpp mhm. gëm naa ne mënut a tëjal kenn ay buntu maireem donc pour vous dire que nii moom day bàyyi xel parce que si yoon bi rek nit da ngay dama lay wax lépp lu amul euh, seede baaxul wallaay lësi ba ñuy ñëw si yoon bi rek lu mu ñoqi si poosam di ko jox ay doomi aadama pour ñu koy ndogoo ba man ak moom dañoo ñëw ba si ga rond point Sonadis mu fekk benn taalibe bu ndaw mu jékki-jékki feree na otoom woo taalibe bi ba mu ñëw ne ma waa Bamba xoolal kii xale bu ndaw bii nii de est ce que war naa mën a nekk fi di yalwaan mm-hmm. ma ñëw na ko est ce que dëkk na sa Sénégal munu ma ñii moom faaw ñu jéem a jug si ñoom xool na lañ mën nan lañ leen mën a jàppalee si la génnee si pootam dara jox ko xale bi wallaay la si ne ko demal te avant mu koy defal ñoon defal nako ñeneen ba benn maire taxaw si benn buntu kër ti taf la mañam mané ko maire gisoo benn maire bu taxaw fee de mais yow action yi ngay def moo ko jaaxal mhm. kon ce qui veut dire que ni nit koo xam ni dafa am benn yërmande si doomu aadama la mhm. parce que su xoolee nit xam ni kii am na loo xam ni peut être moom yàlla defal na ko ko mhm. mu manqué kee rek su nekkee si moom automatiquement day réagir moo tax tey ñu bëri dañ koy faral di wax ne ñun waa Thiès nañu sant parce que ki nga xam ni ba dara doonul dara si lépp liy nit di intervenir si wàllum social soo ko si invité mu ñëw lu mu si am def si kon tey bi nga xamee ne tey alaloo askan wi bi nga xam ne dafa ko war a delloowaal askan wi jàpp naa ne askan bi dinañ si jot jàpp askan bi dinañ ci jot euh, ma dugg ci question yi euh, ki nga xam ne moom moo euh, di Maguette bu Serigne Babacar Sy ñu bàyyi ko mu yëkkati li nga xam ne moom mooy ko ci ki nga monsieur euh, mën nga ñëw yëkëti li nga xam ne moom mooy kàddu euh, jëmale ko ci monsieur le maire ki nga xam ne moom mooy maître Ousmane Diagne après dinañu xaar tamit ki nga xam ne moom mooy président euh, SIDAT bu Zik social moom it mu yëkkati question jëmale ko ci ki nga xam ne moom mooy maître Ousmane Diagne aca Maguette vous avez la parole. waaw salaamaaleykum waa Zik social salaamaaleykum suñu gan gi monsieur le maire ak ki mu àndal ñu ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen tadagal macha allah. ndax déplacement bi rek dara la heure heure ndogu weeru koor nga déplacé kilifa mu bàyyi njabootam ñëw fekk si la. Mhm. loolu ku la considéré wul defe naa du ko def. Mhm. macha allah ñuy am kontaan ak mbégte trop ci yow ndax nag ñun ban lay xam boobu defe naa doonagoo dara ba ñuy may deux tonnes ciment chantier Daaru boobu doon doon doonul doonagoo dara ba tey dara nekk dara nga topp zik di def dara kon ñun. dañuy dañoo xam ni fekk nga ñu si social. te sa naataangoo bi lu mu wax dañ koy firndeel ndax lu tax ñu koy firndeel ba nga nekkagul monsieur le maire yaa ngi ànd ak zik social ba tey nga nekk monsieur le maire kon dun ne guleet <laughs> dun ne wala c'est la première fois déedéet duñ ko wax dañ ne toujours monsieur le maire mi ngi ànd ak waa zik social ñu lay ñaan ñaanal yéen bi yàlla na oyof sa bopp mm-hmm. di la ñaanal fi nga bëgg egg ak askan wi yàlla na la fa suñu borom yeggalee ci barke Nabil mustafaa ci barke weeru koor bii tam nangu ñu lépp suñu jaamu yàlla ma lay ñaaxaat nag monsieur le maire di la laaj sa naataangoo yi nga nekkal ci maire yi nan ngeen leen di sensibiliser pour ñu ñu ñu nekk ci social dimbali doomu aadama dimbali askan wi parce que nag gannaaw yàlla ñun yéen yéen a ñu fi toogal kon tey bu ñu amee lu ñu neex ci yéen la ñuy daw si bu ñu amee lu ñu naqari ci yéen la ñuy daw si ñu bëgg nga ñaaxal ñu sa moroom yi ñu nekk ci maire yi ñu ñu ànd ak bi jàppale leen ci social parce que social moo fi ne ndax ku ne xam na ni jamono metti na mm-hmm. ku ne xam na ni nit ñi sonn nañu mm-hmm. te li ko waral ñëpp xam nañ ko mm-hmm. liggéey amul suñu yaay yi daw nañu ba dee suñu borom kër yi daw nañu ba dee kon nag ñun gannaaw yàlla tàllal nañ leen loxo gannaaw yàlla jox nañ leen suñuy suñu su suñuy kàddu ñuy lay ñu lay ñaan yow ak say naataango ngeen jàppale ñu jàppale waa Zik social ndax ñun li ñuy def dañuy def te yàlla tax puukare wuñu som sommes apolitique politique wuñu dañuy def te yàlla tax ku ñu mun a fekk nag si yàlla ji mu ñëw ñu dem ndax ku ñëw dinañu dem ku ñëwul dinañu dem kon nag ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla eh, yo dëgëral taxawaay bi yombalal la yenn bi ah ba fi nga bëgg egg yëpp yàlla yeggale la fu ba nga paase foofu ci barke mm-hmm. Nabil Moustapha merci beaucoup. Euh, jërëjëf Maguette yëkëti kàddu ci jigéenu Zik Social yi euh, xam naa léegi nii ki nga xam mom moy monsieur le maire dina addu defal ma jangat ci kàddu yi nga xam yëkëti nako ci turu jigéenu Zik Social yi su ci daanelee rek ma jox ki nga xam mom moy président Zik Social di sidat mu yëkëti cadeau maître. ah jërëjëf Assane ñu ngi gërëm bu baax euh, soxna Maguette ci kàddu yi nga xam yëkëti nako fi euh, sànq ci say cadeau bi Bamba Balde, nga xamni moy nek suma rak nek président commission sociale waxé mhm. yang ko koy wax nga ni maire yi un budget social di def mais souvent vous euh, damay indi ben éclaircissement bu ndaw rek. Mhm. budget social ou maire bi ngay dégg. Mhm. lu ci bëri parce que budget bi ñu melni man nga xamanteni sen xam-xam bëriwul boo nee budget rek dañuy japp ni budget ben sagu xaliss la bu maire yor. Mm-hmm. teg ko ci suuf taabalam saa bu ko soxlaa mu génne. Mm-hmm. wala mu nekk benn compte bancaire boo xam ni mën na bind chèque rek dem. Mm-hmm. alors que budget comme ni ko xamee budget ab document la rek ay recette la ak ay dépenses. Mhm. dañuy voté budget wu six cent millions. Mhm. mais six cent millions yooyu dañuy dem wuti ji ko. Mhm. ci à travers ay impôts. bu fekkee commune bi nga nekk nag ña fa nekk amuñu culture fay impôt bi. yow mën nga bëgg nga ni da nga bëgg a defal vie sociale dara. def benn engagement mais percepteur municipal ni la yow amoo fi dara. donc boobu doo mën a dimbali. parce que sax amoo fa xaalis. donc budget bi te social bi ñuy wax ci maire yi budget bi dañ ko jël su weesoo PAC nga xam ni période boobu la ñu nekk nii ñu ngi nekk di éplucher les dossiers de PAC parce que suñu mbokku chrétiens yi aussi ci mbir mi lañ bokk. Mhm. donc feetu PAC bi faaw ñu taxaw leen sur le plan social. Mhm. Euh, suukaru koor yi loolu c'est une tradition boo xam ne fi lañ ko fekk. Mhm. secours tabaski bi fi lañ ko fekk. souvent budget social lu maire yi. yooyu rek lay jël en compte. mais tey jii su ma defee engagement ni Zik Zik FM dañoo am dañuy def zig social. sociale, a dimbali ay nit. dama leen a bëgg a budget bi foo xam Je mën naa ko faa def rek pour qu'ils puissent social bërkaat yi euh, semaine passée dafa am benn xalé bu ndaw ndeysaan bu ñu waroon a opéré. Mhm. ma ñëw sama kër sama soxna jox ma euh, analyse yi mu def ak yëpp. Mhm. affaire yu bëriwul sax 75000 la. Mhm. mais yaay xalé bi moom japp na ni ki maire la mën na ma ci dimbali. mais ci budget maire bi awuma fenn fu ma défé engagement. Dama tal sama auto dem ci gab bi lama fa fekk te ma moom ko. ci la jël 75000 ñu fayal ko opération. Machallah. parce que lolu en tant que maire. Mhm. c'est-à-dire que c'est une responsabilité boo xamante ni sociale bi dañ ko war a taxawee ci askan wi. Mhm. booy xool Thiès ni ni ni mu bindoo. Mhm. ak jafe-jafe yi fi nekk. social bi bëriwul ci budget yi alors que tout est social. nit ñi li ñuy gën a soxla moy ndimbal. ndimbal ay ordonnance moy mm-hmm. ku len taxawu ñu faju moy mm-hmm. ku len taxawu ñu lekk. moy mm-hmm. ku len taxawu ñu ñaan. motax li soxna Maguette wax c'est extrêmement important. et lolu japp naa ni yeneen maire commune yi muy docteur Mamadou Djité. Euh, bu maire Thiès Ouest. muy biram Souley bu maire Thiès Nord. muy docteur Babacar Diop muy maire de la ville. nga xam mom budget sax euh, rapport kii. Euh, dañ ko rapport yi yi épinglé woon maire dañ koy tere ni ñoom waruñu def social mhm. mais moom boo ko gisee mu ngi yëngu ci social bi parce que mu ngi jéem a wut ay bourse yu mu dimbalee euh, ñi nga xamante ni dañoo bëgg a jàng mhm. te amuñu bourse yu jàngee mhm. mais ku xam Birame Souleye xam maire Mamadou Diouf xam ni ñooñu ay nitu daara lañ ay nitu daara lañ te ci social lañuy ñuy yëngu mhm. moo tax incha allah xam naa ni su ngeen leen sensibiliser su ngeen leen bindoon lettre mhm. xëy na amu du ñu leen di déglu comme ni ma leen di dégloo xam relation yi tamit ku mhm. nekk ak relation yi ni muy ni muy demee mais jàpp naa ni su ngeen leen sensibiliser woon ni ma fi ñëw toogee dinañ ko fi ñëw toogee te loolu bu neexee yàlla man dinaa ci dox personnellement ay tànk pour sensibiliser leen wax leen ni leen zik social parce que bëri na fi ñuy def social dëgg la mais wóolu gi ñu wóolu zik social ba jàpp ni bu ñu jëlee alal def ko ci zik social dinañ ko def ci néew gi doole yi mhm. loolu moo tax ñun ñu wóolu justice sociale ndimbal gu ñu bëgg a def ñu jaarale ko justice sociale parce que xam nañu waa justice sociale dañuy def te yàlla tax mhm. soxna Maguette wax na ko mhm. mu ni politique parce que politique lu mu dugg mu yàqu dëgg la sam daf ma daan wax naan ma booy dimbali nit di ci woote woo presse. Mhm. yow boobu yaa ngi def publicité. Mhm. moo tax ñun dañuy bëgg lépp lu ñuy def bu ñu sañoon. Mhm. sax kenn du ko yëg. dëgg la mais yàlla dafa def nag li ñu def nii tey rajo lañ ko defal. dëgg la li ñu naan ku dee ci marché moom yaa tàgge sa bopp rajo moom ku fa def dara moom waa rajo bi dinañ ko wax. <laughs> waaw fii mooy Sama FM Zik FM Thiès. Zik FM Thiès donc loolu rek la. mais comme je te l'ai dit dinañu sensibiliser les autres maires. pour que ñoom ñëpp ñu jëw jàpp ci. et du ñu yaw ci les autres maires képp koo xam ne xam nañ la. muy ay directeur université directeur crous suñu xarit yi nga xam ni dañu nekk ay chef de service mhm. nek ay doomu Thiès te yàlla may leen tuuti doole mhm. dinañ len sensibiliser ba lepp bu lépp loo xam ne Zik FM Zik Social yëkëti nako fi ëllëg di ko def ci néew gi doole yi ñoom ñu mën cee dugal seen alal incha allahu rabbi incha allahu mi ngi noonu damay bàyyi ki nga xam ne moom mooy président Zik social euh, yëkkati li nga xam ne moom mooy kaddu ñu tëjee ko nag après ci kaddu ki nga xam ne moom mooy directeur général Ousin Ndour euh, jiite li nga xam ne moom mooy Zik social moom it mu ñëw yëkkati ci kaddu ginnaaw euh, bu président Sidaat pare président Sidaat Aïcha vous avez la parole. waaw di wax salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax. di leen euh, ndokkee ci jàppale bi nga xam ne di nuyu monsieur le maire bu baax di nuyu kilifa gi nga xam ne moom la àndal Seydina Assane di la nuyu. la fay di nuyu tamit sunu DG. di félicité jàmbaar yi nga xamante ne boobu ba léegi ñoom la ñu àndal wax dëgg yàlla muy Zik Social ba ñu jàppee ba léegi bàyyiwuñu boo xoolee li nga xam ne Zik Social taxawal na ko fi ci lu matagul euh, presque deux ans. Mhm. wax dëgg yàlla dañ ciy sant yàlla. parce que ci lu matagul ans bu buñ ci tabaxee ñetti kër mën naa sax ñeent tabax ci benn daara alxuraan boo mhm. xam ne noonu la aussi ñu joxe ko ci biir loolu mhm. wax dëgg yàlla dañuy xam ne ay jàmbaar lañ ñëpp nag wax dëgg yàlla ñu nekk ay bénévole yoo xamante ne xaaruñu dara duñ bu ñëwee transport sax duñ ko laaj dara duñ ko laaj dañ ciy jàpp wax dëgg yàlla ànd ceeg suñu DG ñu liggéey loolu buñ paree ñu jox ci ku ci nekk li ci sa wax dëgg yàlla mooy mooy li nga xam ne moom la ñuy defal borom mhm. moo tax dañ ciy santaat yàlla baax a baax di wax ni comme monsieur le maire li ma la wax tay rek ne la ñun du kese ni que euh, ni nga def rek wax dëgg wax dëgg yàlla dafa rëy ci ñun parce que ñi fi nekk ñu ci bari wax dëgg yàlla ñu ngi fi mën nañ cee jàpp mais ba léegi sentir ko mais amaan nag dinañ ñëw parce que ñu ci bari bëgg comme li ñu daan wax rek bëgg nañ def social mais xamuñu fan la ñuy jaar mhm. da nga daan jël sa xaalis dem di ci financer ay nit mu naan social mu jël ko di ko détourner wala mu ci kenn xamul mhm. te ñu nag yàlla def na li ñuy def wax dëgg yàlla ñëpp gis nañ ko mhm. moo tax dañ leen ciy li ma wax sànq rek zig social ay ouvrier yi qualifié ñoo fi nekk mo xam électricien mo xam pl ki def plomberie mo xam ki def maçonnerie gars yep nek dañu am sen chantier te buñu yoré yoree chantier wax deug yalla bu chantier succession amé dañuy bayyi lepp ñew japp ci wala soit dañ fay nek xam nga fo xam dañuy liggé presque bay 2 h du matin 3 h du matin wax deug yalla gars di japp motax tax la sank solliciter la ci walu wow muy yow di yenen mairie yep li nga xamante am nañ ko lu walu lu jëm ci wàllu ay tabax wala ay peinture ak yëpp buñ ci tolloo wax dëgg yàlla bu ngeen ko amee chantier yooyu bu ngeen ci waxtaanee ak zig social ñun ñeen lu ñu ci gagné dugalaat ko suñu caisse sociale mën cee jàppaat loolu def ci am solo dina tax dina leen dimbali yéen dinañu dimbali ñun wax dëgg yàlla loolu daan nekk na loo xam ni lu ñuy ñaan la bëgg ni yéen ñëpp ngeen jàpp ci côté boobu ñun côté boobu rek bu ngeen ñu ci dimbalee amul benn problème li ci des dinañ ko mën a gérer bu ngeen amee lu ngeen joxe chantier wala dara peinture lu mu mënti demee ngeen xool ñu bu ñëw daal taxaw jàpp ci loolu bu ko defee affaire daal gën a sawaan baawaan ginnaw biñu ñu félicité gars yëpp wax deug yàlla di wax ni yalla nañu yalla jàppale gën ñoo taxaw. ba ñu hmm. gën a mën daal eh, yok yokk yokk mën-mën yi bu soobee yàlla Seydina Assane. ayca mi ngi noonu nekkoon président Zik social di Sidat euh, lata ki nga xamné mom moy monsieur le maire jangal ñu kaddu yi nga xamné président Zik social euh, yëkëti nako ñu jox ki nga xamné mom moy directeur général Ousseyn Ndour mu tëj li nga xamné mom moy mooy bi euh, ginnaw monsieur le maire bi nga jàngatee kaddu yi nga xamné président Sidat nekk président Zik social yëkëti nako waaw jërëjëf son président sirat maa ngi koy nuy bu baax wax na dëgg tey ci suba rek euh, mu ngi ciy interpellé ci rajo bi. Mhm. Euh, ñun ci dynamique boobu lañu lañu la nekk xam nga yàlla daf ñu dimbali. Mhm. Euh, ñeenti maire yi nekk Thiès yëpp muy ñetti maire commune yi ak maire de la ville. Mhm. talaata bu jot dañuy def benn réunion boo xam ne même bu dee une heure de temps lay durer. pour échanger suñuy xalaat. et yàlla dimbali nañu ci ñu am benn gi même gis-gis bi par rapport ak ni ñu war a ci suñu mbokk kat yi nek à Thiès. hmm moy manam lo xamanteni nii expertise ak expérience bo xamni am nañ ko à Thiès. hmm soxlawul ñuy walu yaani diko ko ci Dakar wala feneen. dëgg la parce que Thiès gis nañ ni taux de chômage bi ni fi réyé mhm. alors que ay ouvriers yu qualifiés ñoo fi nek hmm man xamna ci dara parce que man doomu ferrailleur la suñu kër ñëpp ay ouvriers lañ. Mhm. ci biir campagne bi dañu dem benn jour rond point Mbour 1. Mhm. ma ñëw fekk fa une centaine de personnes. ay jeunes des jeunes frères qui mhm. ay suñuy mag suñuy nijaay ku ci nek ñi yor perle ñi yor brique euh, ki euh, ñi yor pic ñi mhm. yor marteau ñi yor truelle ñom ñu taxaw mhm. ku ci di wut da ngay des pick-up ni ouvriers la soxla wala ñu affaire bi nek lo xamanteni daw yaram la ma ma président bi jox vous man ko da ngay ni euh, maire ma fa ñu waxtaan ñu ñëw man il faut que ñu organiser en GIE. Mhm. pour que yeen tamit ngeen di souscrire ci marché yi. Mhm. man parce que su ngeen di dem ni rek de manière désordonnée nit ñi dañuy continuer di dem di souscrire Ben commerçant bo xamni xamul sax luy ouvrage. ouvrage moy mhm. am ay papier souscrire gagner marché. ñëw diko sous-traiter mom dina ci am ay millions mën tabax kër te yeen du ngeen mësa am kër. man leen da ngeen di organiser wu bu ngeen organiser woo en GIE. Mhm. am ngeen maçon am ngeen ferrailleur am menuisier am plombier. Mhm. su ko su ngeen gañee marché ku ci nekk li nga war a liggéey nga liggéey ko su ngeen ci amee dara ngeen mën a ci seen biir. Mhm. c'est la même chose moom laay wax Sidaat. zig social am façon ouvrier bu nekk. su ngeen ko gënee organiser formaliser ko. je crois que vous pourrez valablement bu marché amee ngeen souscrire ci. di gagner ci marché yi comme ñëpp. su ko defee bénéfice yi génn ca marché ba di ngeen ci mën continuer di dimbali comme so euh, social bi ngay mhm. non seulement di ngeen ci mën def social mais ñi ñi ciy liggéey aussi mhm. parce que ni tamit buy liggéey pour mëna am dara la dinañ ci mëna am dara aussi mën ci gis seen bop mhm. donc ci lolu momit dina leen lancer appel bobu ci côté bobu pour que zik social bi ouvrier ñu formaliser leen organiser leen en GIE lolu ce n'est absolument pas compliqué tribunal rek lañuy dem buñu ñu demee euh, bureau registre commerce. Mhm. ñu défaral leen papier GIE bi jox leen statut yi ak yépp mhm. ñu daal di koy formaliser nga xamni bu ñé maire yi am marché pavage. Zig Social mën na souscrire. Mhm. maire yi bëgg na tabax poste de santé Zig Social mën na souscrire. et je crois que ñu jël marché jox ko ñoo xam ne bénéfice bi ñuy am social lañ ciy def mooy gën nga jox ko koo xamante ne xëy na moom xamul dara sax ouvrage te bénéfice bi muy am ci boppam la koy def kooku mom nek na engagement bo xamni ni jël nako fi tay ji inshallah bu ngeen organiser woo incha allah lépp loo dañ koy def ci walu bâtiment. Mhm. zik social bâtiment yeen ouvrier yi dinañ leen ci impliquer inshallah allah. macha allah am solo ci cadeau yi nga xam monsieur le maire yëkëti nako jëmele ko ci zik social euh ki nga xam nak mom moy DG Ouzin Ndour ñu bayiko mu yëkëti cadeau euh, euh def li nga xam mom moy cadeau kàddu yu euh, yu mujj euh, soxla na la ci plateau bi ndax ginnaw ginnaw lepp sa njabot ñom ñofi tok euh, ndax euh, bu ñu Zik Social euh, di ne sama FM Zik FM ties tay ginnaw gi euh, say njaboot ñom ñoo taxaw ni nii euh, jàkkaarloog yow euh, ñu bàyyi nag ki nga xam mom moy mooy DG Ouzin euh, yëkkati ki nga xam mom moy mom moy mom moy mooy euh, waxtaan ak ki nga xam mom moy monsieur le maire euh, DG Ouzin Ndour acca vous avez la parole. asalaamaaleykum maaleykum salam monsieur le maire. muy ziar fi amul DG. <laughs> social amul DG. Mhm. social mom dama bëgg ngeen teg affaire DG même bu dul social sax Zik FM amul DG. non mënuma xuloog yow tey ndax monsieur le maire moo tax père de famille <laughs> waaw ma ne d'accord wala déet <laughs> dëgg la voilà bëgguma ah. xuloog yow tey moo tax arab tey Arabie bi moom laa indi tey bon di jaajëfal euh, monsieur le maire mhm. di vraiment di la di la féliciter mhm. di leen ñaanal di ñaanal sama waa aussi moom yore social Bamba moom noonu la mun a mel c'est normal mhm.

sa xel dafa war a xalaat ne am na ku ko war a moom. Mhm. ñu la ciy jaajëfal. ñun nag euh, on est une rajo c'est une rajo boo xamante nii on est à quatre-vingt-dix-neuf pour cent pour le social. Mhm. ressources yi ñu am côté publicité xam ngeen ne publicité doxalul euh, doxalul euh, rajo. parce que mhm. électricité bi ça coûte excessivement cher. donc may demander autorités yi fi nekk locales yi mooy les maires ñuy bàyyi xel ci loolu. bu ñu amatee ay service communication ñu ci boole euh, les radios. parce que loolu dañu def ñuy encourager. te dara mënul dox ci dëkk bi sans communication. man nag sama philosophie mu mës a am mooy li ñu RSE e, responsabilité sociétale d'entreprise da di loo xam ne nii dama ko mës a fonk. social bi avant ñuy wax waxu fréquence avant ñuy wax waxu radio sax dañ ci nekkoon donc nous ñu un outil aussi puissant que la radio war nañ ko mën exploiter. non seulement nous ñu ñu ñu tirer vers Dieu mais aussi inciter la population à tirer à à aller vers Dieu. Saar man mënoon naa yor sama mon tëdd sama kaw étage di régler mes problème de régler problèmes problème famille. mais est-ce que loolu mën na ma ak ma tabaxee étage est-ce que mën naa tëdd si kaw bu ci suuf. Hmm. benn chambre lay tëdd benn lal. Hmm. donc du coup suñu yàlla dimbalee may ñu lenn li. Hmm. c'est parce que dañ ko war a partager ak ñu nekkal. esprit de partage boobu yéen teel ngeen ko comprendre. Euh, humainement donc loolu dañ leen di féliciter mais aussi bëgg nañ administrativement aussi côté mairie bi ngeen di diriger ngeen xool aussi côté social volet social bu amatee ñun. L'Union d'Afrique, def rek a la mhm. de vous à moi l'Union d'Afrique a jot demande côté social Mon mun naa la garantir que mairie bi du ko jot mairie ville sax du ko faire, je vous assure. Il n'y a même pas deux minutes de recevoir la personne. il n'y a wallaahi yaakaar rek moo leen tax a jóg. Mhm. cas moi, il traité yëpp depuis un an on a fait plus de quatre réalisations ou cinq Et que yoo xam clé en main.

ay nit samay nawle lañ gënuma leen day gënuma len bàyyi ñu bàyyi seen liggéey social tax len jóg dafa luñ ma c'est vrai mais mënon nañ ko bañ def mhm. donc suñ koy def ci turu radio bu xébu bi di sama FM ci FM Thiès né moy avocat askan wi mhm. donc lo xam daf moy touché mënuma taal sama auto dem bàyyi len ñom ñu dox mhm. il faut damay au moins tok bo au moins mu wóor ma ni ñep dem nañ ma soga jël ndank dem ñima mëna mën a yóbbu ma yóbbu nous ñi ñu yore moto ñu supporter ñu supporter Nous la ñu mm-hmm. aussi mairie bu tricycle pour nos travaux. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, comme yow dafa dogal nga un partenaire radio avant ngay maire. bon je pense que nous wax ndax chaque jour ñu ko donc servir de tampon entre yow et Mary maire c'est vrai qu'on a de bonnes relations avec la maire mais y dañ la bëggoon délégué loolu nga nekk ambassadeurs auprès des autres maires. C'est mhm. ce luñ la ñaan côté juridique bi aussi pour créer GIE wala dara pour soumissionner C'est ce que nous la lu mais comme des entités, nous avons fait ni dañ non lucratif Nous avons amuñu budget amuñu bailleur amuñu caisse amuñu trésorier. Mhm événement nous avons un projet à exécuter nous devons lever des fonds dem ci radio bi def ay émission spéciale sociale nous ñu yone ay mais man je reçois même 10 francs ay ay wave orange money 10 francs je vous assure ni mo meuna recevoir 200 000 dollars meuna recevoir 10 francs le même mot de remerciement bi ñu jox 10 francs ke ko lañ 200 000 donc amuñ ci xej ak sen peut-être que borom lool la tollol am yene bo xamné 200 000 donc lol dañ leen koy sant di leen si ñaan aussi ngeen gën ñu si taxaw côté social bi moom franchement ñun ça nous tient au cœur man personnellement ñii nag yàlla dafa dogal yàlla noot leen ñu ànd ak man ci lépp ñu bokk même vision mhm. mooy aller vers Dieu étant jeune ci nga mën a réaliser lu bëri ci te je pense que ku nekk ci social sa xel dina xalaat leneen lu def lu lu yàlla bëggul mhm. donc ñu lay remercier ci tànk yi nga jóg muy tànku yiw ci weeru koor bi di la wax aussi Ramadan mubarak. merci. ayca mi ngi noonu di ko jaajëfal bu baax a baax moom euh, Ouzin Ndour directeur général euh, ban jàngat nga ciy def euh, monsieur le maire ñu tënk kàddu gi ndax li nga xam ne moom mooy jotaay bi mi ngi noonu di ko jaajëfal bu baax a baax. ah mu nekk kàddu kàddu yu fi kàddu yu fi directeur yi yëkkati moom nekk na kàddu yoo xam ne wax dëgg yàlla. Mhm. kàddu yu kàddu yu daw yaram la. Mhm. parce que daf ñu ñaaxaat rek. Mhm. je crois que li ñu naan montre yu baax yi ñooy bokk heure. Mhm. parce que li wax c'est extrêmement important dama dama déglu fan yële passé le philosophe penseur Moussa Sène Absa. Mhm. mu ni dafay waxtaan ak doom yi mu ni leen pour yéen lan mooy réussir sa vie. Mhm. nee na doom bi ni ko mu doom yi d'après moom réponse yi ko doom yi jox daal mooy nee nit ñoom nit ku réussir sa vie mooy nit ku jàng. am liggéey def concours am liggéey am kër am auto, tak jabar ay doomam di école privée. mun leen bu féké rek réussir sa vie mu ni loolu jarul nit di dund. bu féké ni fay dund rek pour moi, mu am kër am auto, am jabar ju jongoma am ay intelligent di école privée. nek sen mu ni réussir sa vie. Mhm. une vie ne vaut d'être vécue mhm. que si elle permet d'impacter positivement et ou bien d'influer positivement la vie des autres. Mhm. c'est-à-dire vous faites yow sa dund mënuloo fexe ba ñeneen seen seen dund mën a. ñoŋ mën a mën a ñoŋ. Mhm. yow jarul ngay dund. et je crois que loolu waa Zik social comprendre nañ ko. Mhm. ku dem tabax kër. jël caabi ji jox borom kër gi ni ko dugal. alors que bu ngeen ko deful woon borom kër googu en plein air fa lay nelaw. donc yéen vous avez influé positivement ci dundinu kooku. ku dem tabax taara jël daara tabax ko dale ko mhm. karole ko jox ko sëriñu daara bi niko ko mhm. alors que bu dul woon yéen sëriñu daara bi ci benn tabax rek lay dëkk xam nga ni vous avez influé positivement ci dundinu talibé yoy donc yeen votre vie mérite d'être vécue macha allah loolu aduna, mhm. c'est-à-dire que aduna dimbalante la te yeen vous l'avez très bien compris et comme niko directeur waxe inshallah je serai la croix de transmission entre Zik ak les autres maires xam naa ne ñoom ñu ngi may déglu ñun dañu nekk di liggéey ci And bu rafet. Mhm. et je crois que suñ leen sensibiliser inshallah allah rabi. Mhm. fii ma tok ni dinañ fi tew mhm. mais mooy profiter rek sen antenne encore une fois di gërëm les jumeaux. Euh, je crois que c'est l'occasion de le dire. liguey bu rafet bi nga xamanteni ni yéen koy def à travers la radio. man damay xey liguey liggéeyu Tivaouane wàcc ñibbisi. mais heure bi may wacc day tombeek heure bobu la sen émission di commencer bu may jugee Tivaouane ba bu may egg si émission bi moom mooy gunge ci yoon bi des fois damay toog ci oto bi di reetaan man donc xam naa ñi nit ñi dañu am ne kii saa yu rey <laughs> fekk boobu sama gars yi laay rey donc engagement bi ngeen am mhm. bu leen neexoon ngeen ci am alal ju dul jeex mais da ngeen engagé wu résolument ci wetu population yi mhm. et loolu nekkul loo xamante ni lu yomb la donc dañ leen ñaanal yéen tamit fi ngeen bëgg a jëmee seen rajo bi ak carrière bi ngeen bëgg yàlla na leen ko yàlla defal amiin amiin di profité ci occasion bi rek di baaluwaat ak ñëpp Mm-hmm. di bal ak ñëpp ci wéru koor bi di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla may wéru kooru jàmm ñu woor ko ci jàmm wooraat ko déwén te kenn bañ a manqué et encore une fois rek di leen manifester toute notre disponibilité mm-hmm. à vous accompagner lépp loo xam ne daal yëkkati ngeen ko mm-hmm. suñ ko yëgee bu neexee yàlla

Euh, ginnaw bi mo nek ci sunu deuxième euh, sortie bi nga Social def euh, ki nga xamne mom moy biram soulay Diop euh, maire zone nord soxla nañ ko fi momit dimanche euh, dimanche bi ci top amana tamit ki nga xamne moy monsieur le maire di jiite Thiès Ouest tamit dinañ ko fi soxla buñuy tamit ñu tëjandoog tamit ki nga xamne te ci bobu tamit dañuy lancer un appel bo xamne ñent maire conférence lay doon bo xamne Zik Social jour jour jour biñuy conférence bobu ñent maire yëpp dajandoo fii seigne Bamba kàddu gu mujj gi ndax jotaay bi ñu yewi ndax ci koor lañ nek

pour lan nañ ko ñaanal parce que mën na taxu min, miin gi ma ko hmm ak xam gi ko xam. Mm-hmm. xamuma ko ñeneen hmm parce que Cheikh Anta Diop da doon faral di wax il ne faut pas faire la politique de l'homme mm-hmm. mais il faut faire la politique des idées. Mm-hmm. té mom ay idées yu noble yu nekk mom hmm ak yene gu rafet gu mu am ci askanam. tax na ñun ñu ñame parce que ñun lu tax ñu ñeme rek. Mhm. si moom lañ ko gisee. moo tax ñemewuñu benn yoon jéegi yoon. Mhm. parce que tey xam nañ ñun tey suñ jéggee yoon moom duñ ko toléré. Mhm. kon nag duñ ko toléré jox nañ ko cër bi. moo tax tamit ñun mënuñoo def lu dul moom si loo xam ni même suñ ko defee si am su ko yëgee. dina si am mbégte. donc nag moo tax ma ni nañ lañ àndandoo ñun ñëpp ñu ñaanal ko parce que yàggul dara au niveau de jàmm gën.

Euh, le censeur. bi nga xam ni moom moo yor étudier ak yëpp. dafa amoon ay élèves qui fa nekkoon nek ay néew di doole. wara def baccalauréat am ay problème mu seize francs yu ñu wara inscrire à ce moment là il n'était même pas maire. wax la leen di wax de mu ñëw ñu àggee ko ko fële mu ni ma Bamba dafa am lu ma dégg. damal nga doxal ma loolu non nga xol amna wala amul. Mhm. mais te man ak mom daawuñ sa liggéey. Mm-hmm. mais comme xam na ni maa ko gën a jege foofu ma dem defal ko fa ay jéego dem defal ko enquête yu mu laaj yëpp ba indil ko dossier bi mm-hmm. am keneen ku dem si moom du ko ko waxaat mm-hmm. mu ne ko incha allah dinaa leen mettre en rapport ak Bamba moom lépp lu si war dina ko def te noonu la jëlee candidat yooyu war a def bac mu gérer leen seen droit d'inscription yi ba mu mat sëkk te yamul foofu élèves yu bëri dañu doon def bac am ay problème mu extrait moom mu si xar tànk dubayam gi nga daf ma doon woo da nga koy soumettre euh, bi de mais yow mu gi problème bi yow da ëpp parce que moom tout le temps da lay woo. Mhm. fan la toll ak ndax yóbbu nga ko fii ndax yóbbu nga ko fii tey ñu bëri tey réussir nañ seen vie am nañ bac ñenn ñi am nañ nationalité ba am ay liggéey moom mii da dox. Mhm. kon nag moo tax ma ni moom duñ def lu ñu ñaanal ko. Mhm. gëm naa ne ñaanal ko mooy sunu njëriñ ñun ñëpp. te incha allahu rabbi yàlla dina ko gën a taxaw loolu la ñu amoon li ñu war leen leen ay ca mi ngi noonu ci wàllu social moom it mu yàgguñu ñu see taxawul wàllu tamit euh, li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu tamit justice ndax euh, am na benn occasion tamit boo xam ne faaw ma euh, témoigner ko fii ndax am na benn guddi goo xam ne metti woon na si les deux jumeaux ndeysaan ñu ërtaloon ñu ba ba ñu naroon a dem fële sax miir ba gudd ba waaye gisoon ci <laughs> taxawaayu <laughs> juge bi kàddu gu ma jege ñu tàggoo ah jërëjëf jërëjëf amen yéen moom ku leen ku leen ku leen ërtal waa Thiès la bëgg a ërtal <laughs> parce que yéen yéen yéenay la voix des sans voix ndeysaan donc loolu moom dañ leen di jàpp ni leen te euh, euh, ragal nit moom ñi mee yàlla la dëgg la je crois que boo nekkee ci dëgg moom ñu mhm. ñaan tout homme isolé uh-huh. mais fort de son bon droit devient à lui seul une majorité ndeysaan olof naan ko boo ragal ko boo boo nekkee ci dëgg bu ci ragal win mhm. donc dañ leen di encouragé ci liggéey bi ngeen def comme niko Bamba waxee rek ñun suñu aduna mom non lañ ko def dañ ko jagleel nit ñi mhm. c'est-à-dire que nek au service des autres mhm. yalla mom moo ñu ko nattee loolu moom mooy suñu plaisir mhm. xam am na ñoo xam seen plaisir moy dem cinéma am ño xamni ñeneen ño xamni seen plaisir moy dem di def jouer au golf ñeneen ñi dawal ay batu ay yacht mais ñun plaisir bi ñuy am moy di fekk ni ko am ku néew doole ñu jëm ko jappalé ci foofu la ñuy plaisir té lolu dañu japp ni ñun ak yéen yéen ko bokk et c'est xëy na tax le premier magistrat de la commune de Thiès. Mhm. ñu koy gërëmee askanu Thiès yëpp ñi nga nous ni ñoo ñu vooteel ak ñu ñu vooteelul. Mhm. su wax naa ko sànq ci benn conférence à Silman nee naa léegi amatul ay coalition amatul ay parti politique. dëgg le parti politique moo fi nekk muy mhm. parce que la commune c'est la mairie c'est le visage de la commune de la république dans la commune. la c'est la continuité de la république. ñun état bi lañ fi mhm. certes nous ñoo fal mais nous avons la continuité de l'État dans la commune donc ñëpp la ñu njabootee mhm. képp koo xam ne rek am nga njàqare ñëw ci commune bi mhm. dañ la war a taxawu taxaw bi nga xamante ni moom moo ci war mhm. donc ñuy wax waa Thiès yëpp ni leen nit ñëpp jàpp ci liggéey bi parce que am na dynamique bu bees boo xam ne moom la ngir setal Thiès setal Thiès ngir taral Thiès fexe ba kenn dootul yor mbuusu ndox naan ko sànni ko ci mbedd mi fexe ba kenn dootul lekk banaana jël ko sànni ko ci mbedd mi su ngeen xoolee fan yi di ngeen gis ku jaar ale Parcelles Assainies yi dina gis ni épave oto yi fa nekkoon yëpp ñu ngi commencé di ñu ngi koy yëkkati. Mhm. mbedd yi ñu ngi commencé leer. Mhm. je crois que loolu dinañ ko yaatal ba mu egg ci marché yu mel ni Moussante nga xam bu 5 mhm. heures jotee. kenn du fa mën jaar. marché Grand Thiès bu 5 heures jotee kenn du fa mën jaar. marché central buntu gaar bi bu 5 heures jotee kenn du fa mën jaar. donc Thiessois yi ñoom ñoo ñu fal. mais ñi ñu fal il faut ñu jox ñu les moyens. pour que ñu mën a defar dëkk bi. te pour ñu mën a defar dëkk bi nag il faut que décision yi nga xam ne moom la ñuy jël nit ñi di mën conformer wu ci décision yooyu donc ñu ngi leen di gërëm encore une fois di leen sant. Mhm. di ñaan comme ni avons ko dernier jour dernier week-end Ramadan bi. Mhm. ñu dajewaat fait avec les autres maires. Mhm. pour beneen ndogu zik social loolu moom dinaa ci dugal suma loxo bu baax. pour que ñu puissions ko organiser. su jiitee ñëw bu biram ñëwee bii di ñëw. Euh, jiite ñëw bi ci top. ba fin ba ñu àndandoo ñun ñett ànd ak le maire de la ville nga xam ne mooy suñu maire ñun ñëpp ñu ñëw ànd ak waa Zik social ñu def ko mu nekk lu mag ñu tëjee ko weeru koor bi jërë ngeen ay mi ngi noonu di ko jaajëfal bu baax a baax ki nga xam ne moom mooy monsieur le maire Ousmane Diagne di jaajëfalaat tamit euh, waa Zik social bu baax a baax euh, xam naa ni léegi nii euh, damay bàyyi ki nga xam ne moom mooy waa Pello ki nga xam ne moom mooy Ouz le roi ak Baye Kara ñu li nga xam ne moom mooy surtout programme bi ngeen di am jàmm ñuy am jàmm ba ci kanam ak jàmm ndeysaan